UCAB FM li gën a ci yéen kay Papa Saer Mbaye la xewoon ca boofa bayit yenn kaay yu bëri moom la ñu xëy di nu nettali ne nu nag li nga xam ne kon moom moo di dogal ba boo ca tribunal fees na sunu naataangoo yi xëy di xamal ne ki nga xam ne kon moom moo di René Omar Ampoy Bodian ak ñi nga xam ne kon ñoom lañ leen tuumal loon bokk na ca César Atoute Badiate ñoom daan leen seen giiru dund ñu fas yéene koo tëdd ginnaaw euh, tuuma yi nga xam ne kon gàlloon na seen kaw sunu naataangoo yi xëy di fàttali ne lu toll ci fukk ak ñeent daggati bant yoo xam ne kon ci atum 2018 lañ leen faatoon ci àllu boofa bayoot toll nii dogal lupp yoon fës na ca sunu naataango yi xëy di xamal ne ñañ ca tegoon loxo ñett lañ ci mujj gàll na si nag ñeneen ñoo xam ne kon jàpp nañ leen ñooñe bàyyi na leen yéenekaay bi xëy ñi nga na xëy di xamal ne yi ñi ngi xëy di xamle rek ne ñi ñu tegoon baana mu tuuma jëm ci wàllu ko ñañu faatoon foofee ca boofu ba ca àll ba eh, ci atum 2018 jamono ji nag xam nañ naka la fas yéene dunde ci mbir mu ne mel yéenekaay bi xëy di xam le ne lu toll si fukk si ñoo xam ne kon bokkoon na ci ñooñ tuumaaloon ñooñee eh, bàyyi nañ leen am na si ñaar ñoo xam ne kon ñoom jamono ji juróom benn weer kos yoo xam ne kon duñu ko tudd mu doon sursis lañ leen daan yéenekaay bi xëy di xamal ne ñett kon lan cee mujj daan giiru dund goo xam ne ko war nañ ko caa bi xëy di xam la rek kon wulli woon na ñaay ci loolee nga xam ne kon moo xewoon ci àll wàllu Bafoubaye boobu leen Le Soleil yéeni kaay mi ngi xëy di xam ne rek ne jamono yi xam nañ mbir ma fan la mujje ginnaaw ñeenti at ak genn wàll yoo xam ne kon la jóge bu ñu sukkandikoo ci ki nga ne kon moom moo di ñoom la ñu tuumaaloon ci mbir mu nu mel moom la am li nga xam ne kon taatkaay bi dogal na ko ca luñ ci mën di nemmeeku jamono ji ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di njabootu René Capain Bassène Omar Ampuy Bodian ak César Atoute Badiate ñoom nag jamono jamono ji daanaka la ñu sumbo ndax lii nga xam ne kon génne nañu ko libération yéen kaay ñu koy nettali ba tey bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne kon moom moo di avocat bi di Ciré Clédor Ly moom nag ma ngay xam leen ci biir yéen kaay bi di enquête ne nag ñett ñi nga xam ne ñoom la ñu lu jëm ci wàllu ko daan yooyu nga xam kon ñu leen ci tudd ci mbirum li nga xam kon moom di MFDC doon kuréel gi nga xam kon mooy kuréelu way fi puye nekk foofu ci Casamance yéen kaay bi xëy di xamal rek ne ne jamono ju luñ ci mën di nemmeeku ki nga xam ne kon moom moo di César Atoute Badiane moom ginnaaw bu ñu koy àtte moom teewuloon benn yoon yéen kaay bi xëy di xamal ne na si lool ci ñi nga xam ne kon la ñu teg lu jëm ci wàllu ko daan yi enquête yéen kaay moo la marine nationale yéen kaay bi xëy di xamal inauguration bu doonoo ko amal ci teewaay ko njiitu réew bi yéen kaay bi moo xëy di xam la rek ne moom kii xam moom président Macky jot naa fësal lii nga xam ne kon moom moo di ak jàppaleem ci lii di marine nationale yéen kaay bi xëy di xamal rek ne moom kii di njiitu réew mi bokk na ci lu jëm ci wàllu ko sàmm pétrole beeg gaz bi nga xam ne kon na ci yéeneem ngir ñu war ca mën a taxaw ba tey yéen kaay bi xëy moo xëy di xam le ne njiitu réew mi moom xam le rek ne lu jëm ci wàllu ko marine nationale bi kon yoon la ngir ñu gën leen a mën a dooleel moo xam ci wàllu ko jumtuwaay moo xam ci ay nit ñoo xam ne kon ñu mën seenub liggéey la ngir lépp loo xam kon jëm na ci wàllu ko xarala ñu man caa taxaw bu baax a baax laas yéene ba tey ma nga ca école bu bees boo xam ne kon jëm na ci wàllu marine nationale boo xam ne kon fas nañu koo taxawal ngir rek ñu gën mën a sàmm li nga xam ne kon moom moo di waaxi réew Sénégal yéene kaay bi ba tey xëy di xam ne lii bu ñu ko taxawale dana doon loo xam ne kon luy mën a xeex lu jëm ci wàllu immigration clandestine doon ñi nga xam ne kon ñooy sóobu ci wàllu ko mbëkk mi yéene kaay bi ba tey di xam ne du foofu dong la yem ndax lu jëm ci wàllu ko ñoll wi di trafic bi nga xam ne kon dana ko ci def moo xam ne drogue ngànnaay yëpp yoo xam ne kon jëm na ci wàllu ko napp gi nga xam kon moom moo di waa marine nationale dana ca mën a taxaw ba ci lii di piraterie bi nga xam ne kon danañ ca mën a def seen kémt lay kàttan yéene kaay bi ko nettali kaaraange amul njëkk loo ko jënde jar na ko noonu la ko yéene kaay bi di le quotidien xëy dinu ko nettali dinu xamal rek ne fi mu toll nii jot na sëkk ñu gën leen a dooleel yéene kaay bi xëy di xamal ne lépp loo xam xam ne kon doon na loo xam ne kon luy méngoo xam-xam yu xarala yi waaye tam lépp loo xam ne kon dana joxe ay xibaar yu wóor ñii di way kaaraange yi waaye tam lu jëm ci ay ñooñ ñoo xam ne kon seen fit dana dëgër lool waaye tam seen taxawaay dana doon lu am solo yéen kaay bi moo xëy di xam ne ngi def ay pexe ngir rek gën a doole li nga xam ne kon ñoom ñoo yore ko wàllu ko kaaraange gi Le Quotidien yéen kaay moo xëy diñu ko net ne firnde si bokk na ca dalloo goo xam ne kon dalloo noonu ko école de la marine nationale bi nga xam ne kon njiitu réew mi moo ko taxawoon yéen kaay bi ba tey deltuwaat na ci li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon nemmeeku nanu ko ci ñooñu politique yi nga xam ne kon ñooñu politique yi de ñoom nekk nañ ca loole doon loo xam ne kon ku jaaxal yi nga xam ne kon ñoom ñoo di askan wi kenn ku ci ne ak nang ca taxaw l'observateur yéeni xëy di xam le ne réew mi kay ci ak jaaxle dëggantaan ca lool nekk le quotidien yéeni jaaxle gu ma nga ca moom nag ma ngi koy fësal dal di xam ne rek fi mu toll nii woy politique yi li nga la ñuy yàkkante ci bi nga xam ne kon moom la ko doon taxawal ay activité politique a def moom loole mu jële ko gàntal su naataango yi xëy di xamal ne gàntal googe nga xam ne kon moom président Macky Sall gàntal na ko loole dafa doon loo xam ne kon daanaka rek lu ci bëri yoo xam ne kon ay manifestation yoo xam ne kon waa yi askan wi waajoon nañ ko fukk ak juróom-ñaari fan ci weeru ko juin wi ñu nekk yéenekaay bi xëy di xamal ne loolee boo saagatul ci xam leen luñ di nemmeeku waaye yeewi askan wi ak li nga xam ne kon moo ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon moom lañ ci mën a nemmeeku ci jiital Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne kon moom fi nekkoon ay jamono meeru ko Ndakaaru waaye itam député Ousmane Sonko bu Sikicoor mu yéenekaay bi ne luñ ci mën di nemmeeku ñoom taxaw nanu ne aljuma fukk ak juróom-ñaari fan moom moo xam neex wala bu naqari nguur gi lu jëm ci wàll ko manifestation boobu moom danañ ko def ci nii wala ca neex yéenekaay bi di igfm point sn moom ma nga jëm ci wàllu ko bés bi xam ne kon moom lañu jagleel li nga xam ne kon ci àdduna wërngal kàpp lu jëm ci wàllu ko xëy di xamal ne OMS doo kuréel euh, ci wàllu àdduna bi ñoom nag ñi nga yëkkati seen ay kàddu jëme ko ci askan wi di sàkko si ñoom ngir rek ñu ndax bëri na ñoo xam ne kon ci lopito yi soxla léeg-léeg dañ ci am jaay jafe-jafe su naataango igfm point sn moo xëy di ca fësal lu ni mel yéenekaay bi di senego.com moom ma nga xëy fësal lu jëm ci wàllu ko wàccaay bi di xam le ne moom lañ xalaat bi mi ngi bawoo bi di xam le ne xalifa général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour dëggal na lu ni mel jox ko ca ndigal loole nag tax ñu fay xaar njiitu réew président Macky Sall ñaar fukk ak ñeenti fan ci weeru juin yéenekaay bi di Senego point com moo xëy dina ko nettali Dakar actu point com moo nga xëy del ci lu soxal mbirum Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yéenekaay bi nekk ci internet bi xëy di xam le ne ginnaaw tuuma yi nga xam ne kon gàlloon na ci kaw mu doon ñàkkee teggin njiitu réew ba tax ñu teg ko loxo ak njabootam rawatina waajur wu mu góor yëkkati na ay kàddoom di xamle nag doomam juum na ba tax nag muy jëbal ay njéggalam ngir nag ci njiitu réew mi mu mën koo jégal yéen bi xëy nekk ci internet bi duñu xamal rek ne lu luñ ci mën di nemmeeku kàddu yooyu nga xam ne kon ñu ci bëri bëri ci askan wi rafetlu wuñu ko moom ki nga xam ne kon moom ma di Serigne Bara Dolly Mbacké ma ngay yëkkati ay kàddoom di jéggalul doom ja Serigne Cheikh Abdou Mbacké ngir njiitu réew président Macky Sall jégal ko mbokk yi yéene kaayangoog dig dajee lëkk incha UCAB FM a fës ci yéene kaay Papa Saer Mbaye